أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi tedd yi ñu ngi leen di nayu ci nayu bu gën a tedd ci nayoo yi te mooy nayu islaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu fas ànd ak yéen ci jàngat leen ci ngënee li fukki fan yi jiitu ci weeru tabaski kon fi ñu commencé suñu waxtaan rek mooy di leen ndokkeel ci weeru tedd wi nga xamante ni moom nañu tàmbali te mooy weeru zil xijja te di leen di fàttali di fàttali suñu bopp rek comme ni ko borom bi subhaanahu wa taala digle wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin leen fàttali rek lenn ci ngëneel yoo xamante ni fukki fan yi jiitu ci weeru tabaski am na ko mbokk yi xam nañ ne borom bi subhaanahu wa moom lay sopp mu tànn lenn ci jamono yi gënale ko yeneen jamono mu soob ko mu tànn lenn ci palaas gënale ko ci yeneen ni palaas comme ni nga xam ne noonu la ko soobee mu tànn barab bee di màkkatal mukarrama nekk ci ardul xijaaz gënale ko ci beneen barab bu dul booba jël baytullaahil xaraam mooy masjidul xaram nga xamante ni fa la kaaba ga nekk jox ko ngeneen lu mat sëkk loo xamante ne beneen palaas beneen jàkka bu may ak jàkka joojee amu ko ba tax na rot na ci lu wér ne ku fa julli julli googee nga julli fa moo xam farata la wala julli naafila la mu ngi tolloog téeméeri junne julli yoo xamante ne am ko julli ci beneen jàkka bu dul jàkka joojee loolu sax na bu wér ndax yonent bi sallallahu alayhi wa xam ne yonent na nee nañu ci xadis boo xamante ni xadis bu wér la nga xam ne Buxaari yi génnee na ko mu nga naan salaatun fil masjidil xaram bi miati alfi salaatin loolu la ñuy wax ci xadis boobu mu ne julli goo xamante ne julli nga ko ci masjidul xaram te mooy fa kaaba nekk mooy jàkk jàkk ju mag jooju nga xam ne fa kaaba ga nekk nekk ca màkkatal mukarrama nee na julli fa dee genn julli mu ngi tolloo téeméeri junney julli yoo xamante ne yaa ngi ko julli ci beneen bul booba waxaat ñu ci beneen xadis ne julli ci ñàkkaam ja moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nekk ci a war wa jàkkaam ja nekk ci ma mën a munawwara julli fa genn julli mu ne moo gën junne julli yoo xamante ne yaa ngi ko julli ci beneen masjid bu dul masjid booba ndare masjidul xaraam bi nga xam ne moom la jiital léegi kon boobu moo gën a foor jàkka yonent bi sallallahu alayhi wasallam tegee ca ndax boo fa jullee genn julli moo xam farata wala naafila mu ngi toll rek junnee julli yoo julli ci beneen jàkka jurut jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, nekk sa Makkatul Mukarrama te Kaaba ga nekk kon loolu borom bi subhaanahu moom la soob mu jox nga ne loola lu màgg jagleel ko jàkka ji nekk ca Makkatul Mukarrama fa Kaaba ga nekk nga xam ne tey kenn ku nekk ngéej woon nga nekk fa di fa julli chaque jour ñu lay multiplier say julli du toll ni téeméeri junnee julli kenn ku nekk mbibet nga ko moo tax ñu fa nekk dëkk fa noonu lañ xëree wala ñu bari moom ñoom bokk noonu lañ xëree ci dabu nga neen loolu ba tax na bu julli farata jege see ñëpp daw wuti kaaba ga ngir fekkee julli mbooloo ma ca jàkka ja ndax ñu jot sa ngëneel yooyee ñun nekk nañ fa ab diir boo xamante ni yàlla def na bu mayee julli tàkkusaan ak tusubaar yooyu nga xam ne dana fekk si liggéey dañ daan nekk bu mayee julli yooyu daal jeneen julli yi ci des mooy timis ak gee ak fajar yëpp biis mooy ñëw jël siñu suñu biis muy bis bi ñu jagleel mooy ñëw jël siñu yóbbu ñu ñuy joxe julli gi foofu ca masjid ba ndax ngëneel yooyu nga xam ne am na ko moo tax boroom xam-xam yi xër ci lool ba tax na képp koo xamante ni dem nga fa ñoom it dañ mën a jàppale ci nga mën a dabu ngëneel yooyu yàlla def na nañ fa daje suñu mbokk sénégalais boo xamante ni moom jidda la daan jógee di taal otom di julli ci fajar jidda la daan jógee ak jidda ni mu sori ak màkk di taal otom ngir julli ci fajar sa ca kaaba ga ngir dabu ngëneel loolu loolu day feeñal ngëneel loo xamante masjidu xaram am na ko comme ni ko masjidu xaram amee noonu la ko masjidul rasul amee benn julli tolloog junne julli bu dut jàkkaay yonent bi sallallahu waaye loolu taxut maa jóg foofu dama bëgg a joxe misaal rek ne yàlla moom lay soob mu jël place gënale ko ci yeneen i place mu soob ko mu jël jamono gënale ko ci yeneen jamono kon moom la soob mu jël fukki fan yi jiitu ci weeru tabaski jox ko ngeneen loo xamante ne joxul ko beneen fukki fan yu ma yooyee gisoon nañ fukki fan yu mujj ci weeru koor ni mu amoon gëneel waaye sax borom xam-xam yi sax wax nañ ne fukki fan yi nga xam mooy fukki fan weeru tabaski moom moo ëpp doole sax fukki fan yu mujj ci weeru ramadaan kon nga gis ne fukki fan yi kat eh, ndekete jullit bi war na cee bàyyi xel bu baax a baax gën a góorgóorlu ak gën cee yokk ci ay jëfi jaamu yàllaam ngir mën a yokk kontam bi nga xamante moo koy jëriñ ëllëg nga loolu lan moo koy saxal sax na ci alquran loo xamante ni mooy tegtale ne fukki fan yooyu am na ngëneel ndax borom bi subhaanahu wa taala gëñ na ci fukki fan yooyu bismillahi rahmaani rahim wal fajri wal fajiri wa layaalin ashrin wal fajri wa layaalin ashrin yàlla gëñ na ci fajar gëñ ci fukki fan yoo xamante ne mooy fukki fan yi tabaski ndax loolu la ko xaddi e, saxaaba yi firee mel ni ibnu abbas noonu lañu firee xolaayaarin ashrin ne mooy fukki fanu ndax mu fukki fan rek la wax waaye ñoom ñu tekkil ñu ko xamal ñu ne fukki fan yi ci mooy fukki fanu tabaski fan yi ji jiitu ci weeru tabaski kon nga gis ne borom bi subhanahu wa taala ni màggee nga xam ne moom zul fadlil azim mooy borom gëneel lu màgg kon bu demee ba gën ci dara kon la muy gën loolu lu màgg la ndax innal fadla bi yadillah yuti man yasha yàlla moom ngëneel ci moom la nekk moo koy jox ko ko neex moo koy jox lu ko neex moo koy jagleel lu ko neex kon nga gis ne borom bi subhanahu wa taala gëñ na ci fukki fan yooyu muy wane màggaayu yooyu la fukki fan waaye borom bi subhanahu wa taala Eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon wax nañu ci xadis lu ëpp benn xadis wala lu ëpp benn riwaaya buy feeñal ngëneel yi nga xamante nii fukki fan yooyu am na ko te mu ñuy wax ci xadis boobu wala benn ci xadis yooyu te xadis boobu Buxaari yi génne na ko ñu ngi wax naan ñu jële ko ci Ibnu Abbas radiyallahu anhuma qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa ma min ayaamin alamalu saalihu fihinna ahabu ila min hadihi al la wax jëg jublu ci al ayaam al ashr fukki ma min ayaamin amul yenn fan yoo xam ne al amalu jëf ju baax al amalu saalixu jëf ju xew mooy jëf ju baax fiihin na ci fan yooyu ahabbu moo gën a sopp ilallaah jëm ci yàlla moom la yàlla gën a sopp min haadihi l ayaam ci yila fan kon amul yenn fan yoo xamante ni nga jëf ca ju baax moo gënal yàlla nga def ko ci fan yi kon fan yi muy wax mooy fan yu njëkk ci weeru tabaski bi waxee loolu ñu laaj ko xaalu walal jihaadu fi sabilillahi saaba yee ne ko waaw même jihaad sax si yoonu yàlla ndax jihaad dafa foor ne ko xatta jihaad sax si yoonu yàlla ndax dafay duggaale ci loolu mu ne leen xaala walal fii sa sabilillah jihaad sax ci yoonu yàlla sax te xamal ne duggaale na ci biir kon amul benn fan boo xamante ni jëf ca jëf ju baax dina gënal suñu borom subhaanahu wa taala nga def ko ci fan yii nii même bu dee sax jëf ju baax jooju dafa nekk lan jihaad ci yoonu yàlla waaw mu ne illaa rajulan xaraja bi nafsihi wa maalihi falam yarja min zalika bi shay lu mooy nag waa joo xamante ni dafa génn dem jihaadi génnewaale alalam yóbbaale financé ko si jihaad ja te ba muy det far faru delsi moom bakkanam sax faru delsi kon des na sa jihaad ja moom bakkanam ak alalam yëpp des na sa jihaad ja xanaa kooku de loolu dong la ci borom la ci biir la ci yonent bi génne ci ci ci xadis bi kon loolu lañ ci settee waaye lu mooy loolu moom xamal ne jëf ju baax ju mën a doon jëfal ko borom bi subhanahu wa taala ci fan yi moom moo gën a foor ba jëf ko ci yeneen yi fan loolu benn riwaaya la waaye jëlee nañ ci ibnu omar radiallahu anhuma qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne maa min ayaamin azamu inda allahi subhanahu wala ahaba ilayhi al amalu fihinna min hadihi al ayaami al ashir fa aksiru fihinna min altahlili waltakbiri waltahmid mu ne jële nañ ci ibnu omar radiallahu anhu qaala moom ibnu omar wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn fan amul yenn fan maa min ayaamin amul yenn fan yoo xam ne azamu inda allahi moo gën a màgg fa yàlla subhanahu wa taala wala ahaba du caagin muy gën a soppu ilayhi jëm ci yàlla lan mooy gën a soppu jëm ci yàlla mooy alxamalu alxamalu fii hinna jëfee jëf joo xam ne daa ngi koy jëf ci fan yooyu noonu du gënal yàlla du gënal yàlla min hasil ayaam ci yile amul amul yeneen fan yoo xamante ni ñoo gën a màgg fa yàlla ba tax na nga jëfal ko fa jëf ju baax gënal ko yile fan déedéet amut kon xamal ne yeneen i fan yu mooy fan yi rek fan yi moo gënal yàlla yeneen jëf jooyu mën a jëf ci yeneen i fan ak lu mu foor foor jëf ko ci fan yi moo gënal yàlla subhanahu wa kon nag mu ne fa akthiru fihinna na ngeen ci fan yii nii min a tahliili ci wax laa ilaha illallah wa takbiir yi ak wax allahu akbar wa tahmid yi ak wax alhamdulillah na ngeen baril tudd yàlla rek ci gàttal kon loolu xadis la bu jëlee waxam ñu ko jëlee si ibnu amar radiallahu anhu muy gën a dagaral xadis bi nga xam ne moom nañ jiital kon xadis yëpp ci ngëneelu fukki fan ci weeru tabaski lay wax nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci daan xër ci jaamu yàlla ci fukki fan yooyu xoor ci daan ci xoor xoor ñoo na ci jëre nañ sax sayda Aïcha sayda Hafsa mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yasuumu tis'a zil hijja wa yawma ashura wa thalathata ayyam min kulli shahrin na yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan xoor juróom-ñeenti zil hijja daan xoor bisu ashura mooy bisu tamxarit ak ñetti fan ci bépp weer ak ñetti fan ci bépp weer ci weeru eh, lislaam kon lii ay ngëneel la yoo xamante ni sax na bu wér ne fukki fanu tabaski am na ko muy am ci particularité bu mag weeru yépp moom màgg sax waaye fukki fan yi moo ci am particularité boo xamante ni bu feeñ la ndax fukki fan yi ci la jàmm yàlla yu bari di am tabaski moo ngi ci fukkeelu fan ba ci lañ koy def juróom-ñetteelu fan ba ñu nga ca jëm minan nan aj màkka ñu ngi jëm jëm mi nan te xam nga ne eh, bisu bisu euh, euh, tabaski jaamu yàlla googu di xaj kon ci fukki fan yi la nekk waaye e, yow ma arafa nga xam ne moo gën a fës ci bis bi nga xamante ni ci la ñuy e, ci e, yow ma arafa nga xam ne mooy bis bi nga xamante ni moo gën a fës ci bisi aji aji mooy jëf ji gën a fës ci jëfe aji ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alxaju arafa nga xamante ni kon mooy loolu mu ngi amee ci juróom-ñeenteelu fan ba te loolu ci fukki fan yi la dugg kon nga gis ne fukki fan yi bari na jaamu yàlla yoo xam ne mu ngi ci biir kon ab julit na ci xër def ci jaamu yàlla yoo xam ne mën na ko lépp loo xam ne jëf ji xiwal rek na ci julit bi xër di ko ci def moo xam la muy def ak julli lay doon na ci bari lu muy julli ay nawaafil gannaaw bu mu respecté julli farata yi nga xamante naka jekk da ko waroon a respecté di ko sàmm di ko defee ci mbooloo ma na ci teg bari ay naafila yoo xam ne da ko cee toftal waaye dañ cee bëri lu muy woor bu mënee woor juróom-ñetti fan yi baax na bu ko mënut lu mu ci mën a woor ma woor ko ca waaye bu ci ñàkkee woor ba ñàkk caa woor daal moom yow ma arafa moom bu mu ko raw ndax boobu moom sunna la boo xamante ni sunna bu foor la boo xamante ni bu war na ko watandi ko sàgganee ko waaye na bëri tam bu tudd yàlla na ji tudd yàlla lu bëri di jàng alquran di istixfaar di jéggulu borom bi subhanahu wa taala di ci toppatoo ay woy juram tam di ci def li nga xam ne mooy eh, silatu rahim mooy silatul arham jokk mbokk yooyu yëpp ay jëf yu baax la jël sa alal dundale ko ci yoon yàlla leel ay masakin yooyu yëpp ay xeeti jëf yoo xam ne yokkute yaa kon ab jullit mën na ci xër ci xeeti yàlla yoolu yooyu kon loolu daal eh, lenn la ci ngëneeli fukki fan yi waaye lii lenn la ci loo xam ne ab jullit mën na ko def ngir mën cee sàkku tiyaabo yàlla borom bi subhanahu wa nangul ñu suñu jaam yàlla taqir ñu ci yoonu njub teg ñu ci siraatul mustaqim in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kasira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin